politiquement euh, en tant qu'analyste lu muy nekk. Euh, li ñu war a njëkk fàttali mooy liste conseil constitutionnalité bi c'est une liste définitive euh, si bu ñu tënkoo si article 92 alinéa 5 si wàllu constitution bi défision bi recours mënatu mënatu see amati donc loolu il faut ñu fàttali ko pour wax ni kan décision bi ak liste bi c'est une liste définitive mara de musiba lu si mën a am ba am mooy si de retenu definitivement ay la yëwan ñaan ñu ko yàlla yàlla may ñëpp fekkee tal ak jàmm bakkan rocca xëy na su boobaa nag mbir mi mun na bouleversé wu pour ñu mën a jëm si li nga xam ne reporter élection yi léegi nag bu ñuy xayma li nga xam ne mooy génn si vingt candidats yi vingt candidats yi wax nga ko am na ay profil yu différent am na ay profil yu bees yu bees tàkk sax profil yoo xam ne sax surprise la bu ñu jàllee parrainage bi parce que tamit jàpp nañu ni amuñu appareil euh, xëy na liggéey nañu xëy na laa wax gisuñu leen dégguñu leen waaye jàll nañu parrainage loolu questionnement la yoo xam ne tout observateur da koy def parce que comme ni ñu koy waxee rek nit jàll na nga ne bravo xëy na am na ko ko moom waaye yow mii di observer di analyser des fois dinañ la nit jàll na il faut nga def jàngat bi tax nit kooku jàll ba nga xam ne effectivement suba di nga am ay éléments de réponse parce que tamit ñu bëgg bañ ko euh, xam nañu xel ni am na ñoo xam ne jàpp nañu ni liggéey nañu ay weer liggéey nañu ay at parrainage ba bu ñu demee invalide nañ leen newuñu nag par force dañu waroon jàll xëy na gàllankoor tax na waaye nag bu ñuy bu ñuy xayma am na loo xam ne daal si wàllu um, tëgginu parenage bi moom il faut quand même ñu duut si baaram parce que en réalité bu ñu ko bàyyee nii dafay nekk une plaie qui va continuer de, de s'infecter et cette plaie va malheureusement infecter ce grand corps qu'est le Sénégal il faut loolu tam ñu joyante ko ba tax na ñetti décision génn na daanaka favorable si li nga xam mooy joyanti parenage bi ba ca jiitu bu ñu paree de 2019 euh, observateur euh, Union européenne waxoon nañu parrainage baax na waaye faw ñu joyanti bu Sénégal wa amélioré ko buñ damaatee ba ci biir cour de justice de am na loo xam ne wax na ko si juróom-benn mel weer yoo xam ne joxoon na ko daal Sénégal pour mu améliorer changer waat li nga xamoo di parrainage bi gën ko defar diggante bi commission électorale nationale autonome génne na rapport waxaat li nga xam ne moo jëm si wàllu euh, euh, nu ñu koy waxatee amélioration justement euh, wàllu coronto parrainage te bu ñu xoolee itamit dëgg-dëgg un pouvoir ne se délègue pas un pouvoir de décision de prise de décision ne ba tax na même bu fekkee conseil constitutionnel dafa am administration war ay la woon contrôle war ñu ko dénk ab informaticien bu yore kele ak logiciel am di dugal ak rocci di xool ban moo baax ak ban moo baaxul loolu tamit il faut ñu dut si baaraam mbeneen mbir moo di fiche parrainage jëwriñ buy dem euh, conseil constitutionnel day yóbbaale ay ay woto woto ay kees yi kees ngay gis gaa yi di wàcce mais léegi yow ñu def ñu génne l' argent du contribuable tire ay fiche fiche yooyu boo ko yóbboo constitutionnel daanaka après si mer caaf lay mujjee amul njariñ parce que tamit si la clé na marche pas dañuy xam ni am na problème parce que bu ñu la nee clé boo xam ne mënuñu ko exploiter y a problème kan moo joxe clé bi direction générale des élections donc bu ñu demee ba si cappaandaw ga clé bu doxut war nañu am alternative en allant dans le sens de vérifier les fiches physiques loolu tamit gàllankoor la boo xam ne war nañ ko jooyanti donc loolu il faut quand même ñu bañ ko féetale ginnaaw dañ ko war a féetale kanam pour que après acteurs yi seen wàll bopp dans l' dans dans dans l' ensemble ñu xoolaat mbir yooyu yëpp xool lu ñu koy defaree léegi nag profil yi gis nañ ko profil yu différent la 2019 euh, juróomi candidat la ñu amoon te ren Benno Bokk Yaakaar kese génn na juróomi candidat si candidat retenu officiellement il faut la rappeler parce que Amadou Ba fu mbokk mooy candidat Benno Idriss Seck fu mu génnee du bennoo moom ak benn ñoo ànd local ak législatif Boun Abdallah Dionne fu mu génn benno ab euh, euh, Abdou euh, kii Mame booy Diao fu mu génn benno Aly Ngouille Ndiaye fu mu génn ba juróomi kandidat joriñ si wàll benno donc ça on sa loolu boo ko xoolee ak le choc des ambitions dina firndeel effectivement li nga xam moo di lim bi yaatu parce que tamit au départ deux cent soixante cinq loo xam ne soixante trois ñoo jëli fiche quatre vingt treize ñoo jaar conseil constitutionnel ak yu demee noonu maintenant. Euh, xam ñu xel ni profil yi dina wute te am na ay profil yoo xam ne en réalité il faut ñu bàyyi ci xel bu baax c'est des profils jeunes majoritairement ñu si bari ñu si bari cinquante ans la ñuy doog a am wala cinquante ans li si teg barewul donc profil yooyu dafay fàttali profilu président Macky Sall en 2012 comparativement au profil fi nag profil yu fi nekkoon si si euh, d'une part euh, président Ousmane Tanor Dieng si yàlla ak euh, président Moustapha Niass ak ñi àndoon ak ñoom dans le cadre de ces coalitions la moo xam Abdoulaye Bathily la la moo xam euh, euh, ni ñu koy waxatee Amath Dansokho moo xam ñeneen ñu fi nekkoon dans le cadre de ces coalitions là donc fii nag moom il faut bu ñu dugaatee ba ci kanam xëy na daañu su gën a xuus mais am na profil yu intéressant face au profil bi nga xam ne moo génnee ci pouvoir bi mu nekk profil boo xam ne tamit quoi qu'on quoi qu'on puisse am na fi mu jaar xàmmee nañ ko ràññee nañ ko nag Euh, établissement boobu yëpp sur le plan politique ak ku si nekk naka la ñuy tëggee euh, mbir ba mën a jàkkaarloog sénégalais yi si li nga xam ne mooy convaincre leen je crois bien que c'est ça waa ce sera le nerf de la guerre mais bu ñu yeggee ba yegg moom pour le moment am na ñoo xam ne xëy na du ma ne du ma minimiser mais jàll nañu parrainage avec le minimum requis quarante quatre mille mais ay la yëwan boo moytul dina si am ñoo xam ne bu ñu demee élection est-ce que daañu am quarante quatre mille c'est du point de vue par rapport au profil. ak li jaar parce que 0,1 yàgg nañu ko fi dégg 1 pour cent yàgg nañu ko fi dégg si wàllu élection xam nañu xel ni boo doo tudd tur parce que tu ne tu ne tu ne feras pas de propagande pour tel groupe ou pour tel autre euh, candidat mais xam na nañu xel ni mbir mi am na ñoo xam ne bu dee noonu la demee am na ñoo xam ne ñooy seddoo le maximum de suffrage alors que ñenn ñi xëy na ruusitu suffrage yi la ñuy la ñuy la la ñuy am par rapport ak li nga xam ne la ñuy xaar si différents profils yi. d' accord alors dinañu ñu ñëwaat justement ci ci processus bi ak yenn pàcc yi nga xam ne opposition bi contesté na ko vivement muy euh, wàllu parrainage bi dinañ si ñëw ak anam niñ ko anam biñ ko biñ ko doxalee Sa Wolof rapidement sa sa gis-gis si si liste bi. bon sama gis-gis ci liste bi man <clears throat> bett ma parce que yàgg naa toog wax ko ne. ni ma gisee Sénégal ak homme politique yëpp ni ñu sóoboondoo ci politique pour man lu mu néew néew war nañu am vingt candidats wala lu ko ëpp yaakaar naa jëw bu dul dara am nañ jotaay ñu toog yu ma ko wax euh, du gisaane wala dara wala dal ci euh, parce que réew da ngay xool taari xam quoi mënuñu nekk ci Senghor mu bàyyi fi quatre candidats Abdou Diouf bàyyi fi huit candidats en deux mille Wade deux mille sept